guys what up guys what up <laughs> non bi instant délire la rab Babsikile Babsikile dama Babsikile su ma ooyee léegi du ko jot Babsikile dama dafa siw donc mooy dafa mooy traître <laughs> Babs su ma ko fan suñu ma laaj Babsikile ne fu ne mais kii la non mais kii la dama koy oo du ma jël ah, ko gisati mais mais promoteur yi bu leen sàcc Babsikile quoi mais léegi gannaaw léegi rabal sama bopp quoi mais am naa benn reporté mais Modou Fall lu ñu amee benn mais benn couple wala benn kente ah? booy booy fi si demee nga wala Lamine ma jël la. ana ana baraada bi sax xoolal ma xool attaque ma xool baraada baa ngi de barke rasul sama gars yi xoolal rek non koñ bi dafa neex quoi yéen a am seen mais booy man léegi mën naa rab de ma mayal benn freestyle <laughs> sama gars yi barke rasul laay ma la coongoog yeah melu ma ni melu ma ni kii sama gel am na daan faale ma taatu ni kii damay dagg sa baaraam ni sidiki jaabaate booy lu tax nga yaabaate ndax da ngay xeebaate e eh, tegal ma ataaya bi leelaa mar bit boo ma tegal dama koy fag mel ni Kendrick Lamar tey ma def lu raw Tupac la mu defoon jamonoy def raw e freestyle laay ni loolu texte la woon maa ngi rab jàkkaarloog ay taalibe nekkuma ci yoonu piste maa ngi ci watu taalibe ni gis am na gel bu bet benn ah, maa ngi den ak benn gaan bu sol rouge ni nga yow booy ndékki looy teg vulganisateur dama yor sama portable di soxlaaw ma réalisateur ay eh, ni nga fàllu murit nga wala tiijaan ni bu lax bi nga doon li am solo mooy nekk julit maay rap booy fis ngay enjoy doo mës a tuflit mën naa ay freestyle une heure de temps mën naa ay freestyle di saaga sa temps ni nga booy ma la ci deux temps rap dama ko mën te du tax ma fëgg sama dënn kan la cooma jommal na la tegu ci biit ne bal ci tabalu ping pong séddale ram si nag bu ñuy tong tong booy rek ma dolli lii moo dàq biscuit dolli niggas maa ngi rap maa ngi rap lu bees du ma rap lu rap et eh, niggas lu tax nga may jéem a yàpp yaa ngi lekk keccax e eh, man maa ngi lekk yàpp <laughs> e sama koñ am na Modou am na Fallou am na yaaba si kaw duguma oto booy wala laay jël su ma neexee sax damay yaaba on oh, rappeur bi nga yaakaar dama koy wàccee ni nga saaboo boo ñëwee sama kanam booy da ngay am gàcce e bab si kila laa bëggoon invité mais xoolal dama posé lapin sama kër am na ay laadum e ma lapin e ni nga mu dool ma dool yi man ak ah, ma ne coono the best rapper the super rap maker freestyle ma doon may la waaw tax gars yi vulcanisateur bi naam seen na gaan boo xam ne fi la ne mais day jàpp ay tef <laughs> gaan boobu <laughs> sama gars yi bi ngeen naan ay ma Babs am calling bi ma nigga gars yi ñooy laaj Babs Killa ñëw la mais Babs bu ñëwul rek maa yegali rab bi ah, sama gars yi bi ngeen